asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet yi comme d'habitude dañu ñëw jox leen liste probable liste bi ñu jàpp ne euh, donc Aliou Cissé moom lay convaincre donte le débat Aliou Cissé naa def beneen vidéo andi leen si ay leeral parce que am na ay info yu si des par rapport ak contrat et tout ndax mooy nekk coach bi li ñu leen mën a wax rek mooy que bi moom liste dina génne fële ca Goodreads VDN à partir de 10 heures ajuma bi donc donc loolu moom mën nañ ko wax si si si information nag ndax Aliou moo fay toog wala Pape Thiaw moo fay toog loolu beneen débat dinañ si euh, andi ay leeral si beneen vidéo di wax ne man damay joxe sama liste parce que ñu bëri dañ bi nga jàpp ne après nag nga bàyyi ñu ci commentaire ñu wax suñu xalaat donc tey noonu laa koy defee man damay joxe sama liste après ma andi liste bu Aliou Cissé yi man damay dem si euh, poste de gardien de but trois gardiens laay convoqué maintenant il faut, noter que Edouard Mendy il est blessé la saison commence avec commencé yeux donc a trois gardiens il été convoqué C'est euh, Timothy Dien, moom l'a convoqué ma convoqué donc qui Yvan pour la première fois parce qu'il Yvan Diouf toutes les tous les matchs du côté de Reims Reims a fait des matchs avec Marseille et match avec Paris Saint-Germain donc Paris Saint-Germain match a yi de gagné Kendrick mon côté, moi euh, Reims donc Yvan Diouf pour mon niveau de mu donc moom l'a dit. et pour remplacer Edouard Mendy donc j'ai deux possibilités samba bi nek du côté de Kader mo bi de jouer chaque jour wala Bingourou Kamara bi nek po mais damay privilégier samba bi xamante voilà voilà mën naa ko comme troisième gardien troisième gardien pour man c'est bon pour ces trois gardiens si toutefois nag Edouard Mendy wér na ba nek si 100 ma samba lay laay boba seni boobaa mo nek mo fi nek euh Ivan Diouf ak donc ak Edouard Mendy donc lii mooy trois gardiens yi ñuy wax euh, ñu dem ci défense défense damay wo Kalidou Koulibaly donc moo Sangante euh, xam donc Arouna Sangante bi nekk du côté de la Havre xam ngeen ko bu baax a Abdou Diallo dinaa expliquer pourquoi Abdou Diallo moo woo au poste de latéral gauche Jakobs ma boole El Hadj Malick Diouf au poste de latéral droit Noa Fadiga Ilay Camara léegi nag euh, pour montrer la défense je instant me positionne entre Formose Mendy bi di jouer tous les jours du côté de Lorient euh, wala ma woo keneen kii di Mikel Goffey bi xamante yàggul jouer noonu avec Paris Saint-Germain donc peut-être défensive léegi nag lan moo tax Moussa Niakhaté gisoo leen dafa blessé di côté de Olympique Lyonnais moo tax woowuma ko euh, Abdoulaye Seck aussi tamit dafa blessé donc euh, Abdoulaye Seck aussi dafa blessé loolu moo tax bokkuñu si sama défenseur maintenant nag liste bii laa bëgg euh, lan moo tax ma woo Abdou Diallo par exemple woo woo ma benn sélection je trouve que expérience à part Kalidou Koulibaly amul keneen ko am benn expérience donc Abdou Diallo nekk fa pour man c' est bon donc Abdou Diallo Kalidou Koulibaly c' est bon pour l' expérience et les jeunes Sanganté donc la gën a préféré

Pape Gueye aussi, rien à dire. ça même si euh, tant il n'est pas toujours du côté de Tottenham, ça reste Matassa un joueur capable de faire des choses. Et Sernias, moi, il le nouveau joueur du côté de Young Boys. Il joue tous les matchs. Et à chaque fois, il est champion. Et c'est un joueur qui est bon. Donc, je privilégie Sernias au lieu de Yélen joueur qui est convaincu. Et au niveau de l'attaque, je vais Sadio Mane, Iliman Diaye, Ismail Assar, euh, Jackson Sima, Bouladia, Serif Ndiaye, Hassan Maintenant, nous vais hésité entre Assane le joueur bi il voilà bëgg au poste de délire ou Cheikh Sabali qui xamante très fort maintenant si c'est le dossier Assane c'est compliqué pour man Cheikh Sabali peut le remplacer bien du côté des matchs ça va être très intéressant parce que a un jour de côté donc man lii sur sama liste de 28 jours joueurs yi xamante bu ma sañoon moom la ñu maintena maintenant nag y a des considérations xam dugguma si mooy la moo tax waxoo Malick Thiaw la moo la moo tax waxoo Boubacar Soumaré la moo tax waxoo Alioune lu faisable laay wax lu mën a nekk lu xel mën a nangu ak jamono bii nii di fi taxaw ñii laa jàpp ne ñoom la ñu war a convaincre maintenant Aliou Cissé ñi muy convaincre la ñuy andi après ma bàyyi leen ngeen yéen si commentaire ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis propos ak loolu Aliou Cissé si Mendy bu fekkee dara jotu ko Mendy kii euh, doon ko euh, Modou Diop man Aliou Cissé ay mbiram na ma xanaa sax bii moom war na war a woo Yehvan Diouf mais teg mu waar Mamadou Diop donc loolu lay Aliou Cissé Kalidou Koulibaly Abdou Diallo da koy woo Seydou Sano Formose Mendy da koy woo Noah Fadiga Crépin Diatta attention Jacobs El Hadj Malick Diouf lii mooy joueur yi Aliou nga dolli si donc euh, joueur bi Mikayil Ngor Faye donc lii mooy lii mooy Aliou Cissé Aliou lii mooy euh, défense am Abdou Diallo wax naa ko gars je pense fàttewuma fàttewuma kenn si jour Aliou Cissé parce que ñeneen ñoo blessé comme Abdoulaye Cissé dafa blessé sinon da koy woo Moussa Niakhaté bu fekkee bala wér day day ñëwaat attention donc day ñëwaat loolu mooy défense su Aliou Cissé donc euh, milieu terrain bi euh, Pape Matar Sarr Lamine Camara Pathé Ciss Habib Diarra Pape Gueye Cheikh Niass pas Cheikh Niass asafula Idrissa Gana Gueye ak Nampalys Mendy Nampalys Mendy quoi qu'il arrive da koy woo c'est son joueur bëgg na Nampalys Mendy kenn mënu si dara il sera là donc loolu aussi y a pas de débat au niveau de l'attaque Sadio Mané

euh, au niveau de la défense par exemple je trouve que euh, Noah mérite amplement da koy ko da koy convertir dama fàtte sax Noah Crépin lay boole Crépin ñëwaat ne lay woo Crépin Diatta loolu lay boole et au poste de latéral gauche euh, El Hadj Diouf montre quelque chose d'intéressant et pour moi et kii euh, El Hadj Malick Diouf il y' a pas de débat et au niveau de notre défense nag donc boo xoolee propos ak absent comme Abdoulaye Seck Abdoulaye Seck et Moussa Niakhaté mën na dugal Sanganté mënul sàngate eh, quoi aaroon sàngate et eh, eh, mën na andi tamit kii nu ñu koy waxatee Formose Mendy oh, au lieu de Formose di dem jouer ay poste ay position droit wala latéral droit da koy da koy remplacer dafay dugg si axe bi et bu boobaa da am ay Mikal Ngor Faye Sono xam bi paas dafa woo défenseurs yu bëri mais défenseurs yi boo leen seetloo Seydou Sono ak oh, El Hadj Malick Diouf si tribune leen ak Seydou Sono ak kii waay Seydou Sono ak l'autre jour la maa ngi fàtte sax. ak El Hadj ak kii Miguel Ngor Faye dañoo tamit toog si tribune yi c' est pas intéressant woo ay défenseurs dul jeex pour tekk si tribune maanaam dañuy mottali rek mais je comprendre ma ce choix là quoi et euh, moom li li mu leen si wax nii gëw ma ni dara dina si changé gëw ma ko quoi et euh, au niveau de l'attaque aussi c' est les mêmes teg euh, ñoo ñëwaat Habib Diarra moom kii mooy génne kii Habib Diallo dafa blessé mu remplacé ko par donc mu remplacé ko par Boulaye Diop sinon c' est c' est du Aliou correct maintenant nag gars yi dinañ ñëw après ndax Aliou Cissé moo fi nekk wala du fi nekk si beneen vidéo parce que am na ay xibaar yu si génn si diggante bi euh, ñu andi si ay leeral à ça mais tout d'abord dañ leen di bàyyi euh, ci commentaire yi euh, ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis par rapport ak liste yi sama liste ak liste bu Aliou Cissé ak yéen yéen joueurs yi yéen ngeen bëgg a gis ci commentaire yi wax leen ma ko ce sera intéressant mu nekk débat man ak yéen donc moo wax leen aussi tam gars def leen ñu TikTok TikTok ñoo leen man de sama internet yi man TikTok fan quoi da ngay def benn vidéo

xam naa ne da ngeen di jënd pour accompagner dooleel seen football TV donc dama leen di wax un grand merci ñi ko defoon yàgg na ñi ko def léegi nii ak ñi koy waaj def rek un grand merci franchement yéen a jàpp ci combat bi yéen a jàpp ci liggéey bu baax a baax donc sant naa leen gërëm naa leen wax leen ba beneen suuf seen football TV.